subhaanallaahi walhamdulillaahi laa ilaaha illallaah daal di dugg ci Sénégal bi mu ñëwee ba Sénégal dafa dem ba di Njaasaan fekk fa sa maam Cheikh bu Mouhamed Kunta borom Njaasaan daa da am ca moom biir bi tarbiya ndigal ga ñëw na ndigal nga mooy sama ma ko jox ndigal ne ko jëlaatal yoonu féeku bi boo fa demee jox koy tegtal tegtaleer olom garab gi ci la bokkoon mu ne ko boo ñëwee ba gis garab yooyu nanga ko tuddee sama ko dëkk fa lii moo waral farabugu kon bu ne farabugu kan moo ko sos naan kunta ku so bu waa na kunta ni say baaraam damay deugal li nga wax Cheikh Abdou Khadir Kamara yeen la fi nekkal yeen sen ma mom mom moy ki nga xamantene mo jox ndigal Fara jaxete mu sàkk dëkk bi. mbokk yi bi neena mo mu leen di nuy dinaa bañ sante yonent bi sallallahu alayhi wasallam sallam. dinaa bañ santee yàlla. julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena mo ngi leen di sargal bu baakha baax. di leen ndokkeel ci xew-xew bii ci siyaar bi ni ni ngeen koy taxawee at mu nekk ni yàlla na ko yàlla nangu amin ñu ngi gërëm itam ñu ngi gërëm Maxtaar seen rak yabal leen fi waa Ndiassane TV ñu ne gannaaw ba ñu jógee ca tàntu mag ñu teew si fii. ci suñu kër. di suñu njaboot. kër Moussa Keita yal na ko yàlla yokk leer. njabootam nekk fi. te seen i bokk fekk leen fi. muy soxna si ak xale yi. ànd seen kilifa. Cheikh Sidi Keita. ak man mii ñu fekk tam. seen kilifa moom mooy Serigne Ndiaye ne yàlla yàlla nangu lépp ne lépp xerte la ne lañ waxoon tànt ba masala mën na sëkk ñëpp a ko bokk waaye nag waaye ñoom seen mbir moo demee noonu ak seen cofeel ak seen pas-pas tax na lépp loo xam ne lu jëm ci lu baax ba kër gi duñ ci doyal moo waral jotaay bii ci kër gi am na solo nag ndax njabootu kër gi ñoo fi nekk di doom di bàyyi di seen mbokk yi fekk ak mbokki taalibe yépp mën na su defee xanaa ay dénkaane rek nit nag bu fekkee njabootam war na leen a dénk surtout nag ñi ko yaakaar ci wàllu yàlla li ci des moom mooy loolu rek gën a góorgóorlu te takku gannaaw bu ñu gëmee suñu borom nangu ay dogalam gëm yonent bi sallallahu nangu ne yàllaa ko yónni li ci des mooy jëfee ndigal bàyyi ay tere ndigal nag yaatu na li ci ëpp solo mooy fas ko te saa soo ko déggee fas yéene jaar bu ko defee rek saa bu jógee nga am mbind mu bees daal di jaar bu yàggee bu yàggee njëriñ am. duñu ko am. njub am njub am. barke am. loolu moo ci nekk. na ngeen di góorgóorlu bu baax. topp seen borom. seen kem katam seen kem kattan. mooyu ay safaan. mooyu ay safaan. seen kom kattan. loolu. mooy ndigal lu jëkk li. ci des. mooy defar seen diggante. defar seen diggante. mag. yërëm rek. yërëm rek. baay. yërëm doom. rak topp mag. topp baay. topp bi itam sax ndey. topp bi sax ndey. ci kaw nag. ci loo xam ne. day tegu ci la neex yàlla. day tegu ci la amee. bu toppante am. joxante am. sutura am. sutura am. diine jag. diine jag. ñu ëllëg. loola rek lañ ci soxla. sutura ci àdduna. sutura ci àdduna. ak barke. ak dem yàlla yërëm la. fekk yaa ngi woon ci. ci yoon bi nga xam ne. mooy ndigalul yàlla. képp kum fa jaaree nag. te la ko. kooka. sa njiit la. sa njiit la. ci wàllu yàlla. yàlla moo yore ndigal li. moo joxe ndigal. jaaree ko yoon bi solo ñu baax ñu ko jot a jot ko. ñu baax ñu ko a jotali ko. waaye loolu mooy diine. diine nag. jaamu yàlla. jaamu yàlla. ak defar diggante yi. leen mu ngi leen di dénk loolu bu baax. ngeen joxante cër. bu ñu xam ne kii. seen kilifa la. seen kilifa ngeen jox ko cër bu mat sëkk. moom. kilifa moom. waaw rek bu waxee rek. benn jàddu loo wala yoon yàlla. defal rek. mu ne dana leen jox benn message ci ndigal. ci ndigal. barkam ndigal. mu ne dafa am ku yàlla ci gànnaar. bu yàlla may. waaye nag daan sàcc. danaan sàcc. sàcc. sàcc waaw danaan sàcc. faj faj mooy nga. faj waaw waaw maanaam faj maanaam. médecine traditionnelle. traditionnelle. yaa ngi am na garab yu ñuy wax lay dóor. am na garab bu ñuy wax lay dóor. naar yi di ko jëfandikoo. naar yi di ko jëfandikoo. olof yi sax xam nañ ko. ak làkkat yi. ñëpp xam nañu ne. ñëpp xam nañu ne. lay dóor day faj. jàngoro yu bari. nandal la itam day daw biir waaye boo ko defee nanga ko war a defee garab gu amul morom la sallallahu alayhi wa sallam bokk nañ garab mu diglee am na barke te day faj waaye góor gi loo loo ñëw ni ko damay métti rek waaye góor gi loo ko wax mu ne laal lay dóor am den waay ñëw. den waay ñëw. di ko ñaanloo. gileemam gu réer. gileemam gu réer. mu ne ko sama gileem dafa réer. nga bëgg ma mu feeñ. mu ne na nga naan lay dóor. gileem gu réer lu ci gu réer lu ci lay dóor man. mu ne ko demal naan naan lay dóor moom itam mu dégg ni nga dem naan lay dóor. ci guddi bi mu daan tëdd. ci guddi boobu daan tëdd. defar lay doon naan. la ko defar lay doon naan. tëdd tëdd. dem ba xaaju guddi. dem ba xaaju guddi. boori 4 heures. boori 4 heures. jëm 5 heures. jëm 5 heures. lay doon yamal. lay doon yamal ko. booba douche yi amul ci kër gi. dañ daan génn ba ci àll ba. di faj seen aajo. mu génnee di dem dem ci ginnaaw kër gi. bu mu génnee dem ci ginnaaw kër gi. ba sori. ba sori. ndax lay doon bi ko yebal. ndax lay doon bi ko yebal. mu ne ko aajo ba noppi. mu defar aajo ba noppi. wala ba di ko ñibbisi. wala ba di ko ñibbisi. fekk gileem gi taxaw ci biir gileem yi. fekk gileem gi taxaw ci biir gileem yi. mu jàpp ko yeewu. waaw dellusiwaat ci góor gi. dellusiwaat ci kër gi. ci góor gi. ci dellusiwaat ci góor gi. suba sa ci suba sa. mu ne ko ànd gileem nga. mu ne ko ànd gileem nga. mu ne ko feeñ na de. mu ne ko feeñ na de. mu ne ko feeñ na. mu ne xanaa lay doon fi. mu ne xanaa lay doon fi. <laughs> kon am na solo de. kon am na solo. ngeen tënku ci bu baax ngeen tënku nag ci bu baax ci kaw neex yàlla ci kaw nag lu neex yàlla yàlla ngeen def tawfeex ngeen góorgóorlu bu baax topp seen borom defar seen diggante te defar seen diggante yéen kilifa yi mii di seen jaay man mii di seen jaay ak Cheikh Sidi Keita mii uf xale yi mën nañu uf xale yi ñemele leen seen bopp ñemele leen suñu bopp ci yoon. teg leen ci yoon. di leen muñal. di leen muñal. di leen wan yoon bu ñu leen jeneenu. di leen wan yoon bu ñu leen jeneenu. ñoom itam. ñoom itam. nañ leen jox seen cër bu mat sëkk. ñu jox suñu dara. bañ cee xool dara. bañ a xool dara. ba ci jayna ba ma leen. ba ci jayna ba ma leen. nañ ko jox cër moom itam. nañ ko jox cër moom itam. jigéen la. jigéen la. ah jigéen nag. jigéen nag. xelam du mat ñaare. xelam du mat ñaare. léeg-léeg. léeg-léeg. waaye nag. waaye nag. bu dee sa kilifa. bu dee sa kilifa. bu la waxee loo xam ne du noona. bu la waxee loo xam ne du noona. xalaatu jigéen jàpp ko. nga xalaatu jigéen jàpp ko. jox ko cër. jox ko cër. waxtaan ak moom. waxtaan ak moom. ba ba ba déggoo ak moom. ba la nga war a def. def la nga war a def. loolu moo yàlla. su fekkee nag. su fekkee nag. lam la wax. la wax. juboo naag. juboo naag. la war a am. la war a am. Ah, ba tey ba tey. jaar ca yërëm ko yërëm ko. suturaal ko suturaal ko. waaye kilifa yi nga xam ne. waaye kilifa yi nga xam ne. moom la fi yàlla teg. lu moom la fi yàlla teg. na ngeen jox seen cër ba seen ñoom. di leen di ñoom ñoom itam maa ngi leen di dénk. ñoom itam mu ngi leen di dénk. ku ci soxla nit. ku ci soxla nit. woo ko woo ko. wax ak moom bul ne. Eh, nangam. nangam nangam. ndax ku yor njaboot. ndax ku yor njaboot. Eh, da ngay. boole muñ. da ngay boole muñ. ak xikma ak xikma. Ah, bu ko defee rek. bu ko defee rek lépp dana baax. waaye njaboot gi tam. nañu ànd. nañu ànd bu ñu bëggee barke bu sax. bu ñu bëggee barke bu sax. li nga xam ne amul limite. li nga xam ne amul limite. nañu góorgóorlu. nañu góorgóorlu. ba am. ba am seen i ngërëm. seen i ngërëm. Moussa nekku fi. Moussa nekku fi. yàlla na ko yàlla yërëm. yokk leeram. waaye bàyyi na fi. waaye bàyyi na fi. yaayam. yaayam bàyyi fi rakkam. bàyyi fi rakkam. wala ay rakkam. wala ay rakkam. bàyyi na fi yow mii. bàyyi ma fi man nii. yàlla boole ma ak seen waajur. yàlla boole ma ak seen waajur. mbokk yi mel ni yow. Ah, leen def seen kanam. nañ leen def ah, ko defee rek. bu ñu ko defee rek. lépp baax lépp tam ñu leen tette bu baax. ñun tam tette bu baax. bu ko defee rek. bu ko defee rek. yàlla moom li mu yor du jeex dana ko sotti ba mu doy bu ànd ak sutura ak lu neex yàlla loolu dañ doon dénkaane ni ngeen jaxasoo diisoo di waxtaan àdduna yàggul dara saxu bi ñu góorgóorlu rek yàlla baax na yàlla yàlla defal barke ak faju aajo dafa ñu taw fépp. ñu ngi nuyu ñëpp. mu ne Assane Cheikh mi ne. ñu ngi koy ñaanal bu baax. lii mu dugg. nga xam ne soppi yoon bi rek moo fi taw dugg. jëm ci yàlla. yàlla ko ci yàlla defal barke amin. bu koy jor. lim ci bëgg lépp. yàlla jox ko ko. bu am ci ndam bu baax. te lépp ànd ci. ñu ngërëmal suñu borom. yàlla na ko yàlla defal ci barke yonante bi. ñëpp. ñu ngi nuyu ñëpp. Cheikh Abdou Khadir tam. Cheikh Abdou tam. Euh, Camara. Camara. moo ñu toogal. moo ñu ngeen koy nemmeeku. na ngeen koy nemmeeku. di ànd ak di def lu baa di yëngatu. ci li nga xam ne ci li nga xam ne. day dundal diine. day dundal diine. kër gi bi ñu koy wax. kër gi bi ñu koy wax. dundal kër gi. dundal kër gi. mooy dundal diine rek. pour dundal diine rek. mag ñu baax ñu fi ne woon. mag mag ñu baax ñu fi ne woon. diine rek. diine rek. moo leen may li ñu amoon lépp. ku leen di toog. kon ku leen di toog. da ngay dundal diine. da ngay dundal diine. te nañ ko bëggee. te nañ ko bëggee. defar seen diggante boole ci defar seen diggante boole ci. moo tax lool. yal na ko yàlla def. ñu ngi sant ñëpp. ñu ngi sant ñi fi teew yëpp. suñ doom moo yónnee moo ma caméra bi. jë sëñ. Jéy. Jéy Abdou. doomu Baaba Cheikh Abdou Khadre Jëlaani. doomu Baaba Kunta. ak ki mu àndal. ak maxtaar bi leen yabal. ñu ñëw fii. ngir. ngir taataan mbir yi. waxtaan wi. ak eh, sikkar ngir ñëpp jëriñu ji. loolu am na solo لا ألفنا يا ألف يا ألف من التوفيق من التوفيق أكثر المتقين من واحد القسام تجي تا بيجي تانتو تسلمني واجب ديني واجب ديني طيب، واجب هو واجب غور غور نعم غور غور نخلي نيجي ديد نخلي نيجي ديد نخلي نيجي ديد يو بالك مو جري لين آه، لول أنا صلى الله يا من جاء الأخير يا من جاء الأخير أمين خلي نيجي لين يا الله خلي نيجي لين يا الله yàlla defal leen tawfiq defal leen barke ñu ñaanal jigéen ñi. Jaynaba mi ñu ak xale yi. ak xale yi. yàlla suturaal leen. jubale leen seen kilifa. jubale leen seen kilifa. ñu ànd jaamu yàlla. aduna yàggul. ngeen góorgóorlu ci loolu baax. lépp loo xam seytaane da koy rek. lépp loo xam seytaane leen ko dàq mooy noonu. waaye noonu amul. waaye noonu amul. ci diggante ñu julli. ci diggante ñu julli. waaw ay mbokk. donc war naa ay mbokk. noonu amu ci de. noonu amu ci de. seetaan mooy ñëw rek. seetaan mooy ñëw rek. jafe sa xol yi. jafe sa xol yi. mu mel ni noonu. mu mel nag noonu. bu sikkante amoon sax. bu sikkante amoon sax. duñ ko tuddee noonu. duñ ko tukkal tuddee noonu. kii daa juum. kii daa juum. man moo ko ne jubanti. moom bu ko mënee jubanti. jubanti jubanti. ci ci teey. ci teey. ak waxtaan ak waxtaan. bu fekkee eh, loolu la ñu ko jox la rek. bu fekkee loolu ñu ko jox la rek. léppay baax léppay baax. koo sikk rek waaye buñ koo sikk rek jàpp sa njàmbur bi moom di ko ko xoolee di ko seetaan am yoon seetaan am yoon di waxtaan di diisoo di waxtaan di diisoo loolu mooy yëfi jullit loolu daal ci gàttal mooy ndénkaan li di ñaan yàlla doon li sutura ak barke euh, Salif Salif yow mi nga xam ne yàlla dalal na yaay taaw ci góor ñi yow it am gannaaw Cheikh Sidi Keita. gannaaw. Cheikh Sidi Keita. gannaaw Cheikh Sidi Keita. ak yow mii. ak yow mii. ah yow Ndiaye sëñ Ndiaye. man man sëñ Ndiaye mii. Ah. di Papa Ndiaye. lu ñu xale yi war a jaaxle. mu ne lu xale yi war a jaaxle. maa leen war a war yoon yoon. moom Salif moom Salif. mu góorgóorlu bu baax. li mu nekkoon ci lu baax lépp. mu dolli ko. gën a defar diggante yi. gën a defar diggante yi. gën cee taxaw gën cee taxaw. ndax ndamam rek lay doon. ngeen top maam sen mam bu baax. ak sen bay sen bay yep seen baay yëpp. ak mbokk yëpp. loolu mooy ndigal li. li tax koy li mu tax mu di ko jotaay bu melni dafa yomul bo gis sa njaboot nak boo gisee sa njaboot war ngaa góorgóorlu. occasion bañ laa raw. occasion bañ laa raw. nga ne. jox le li nga xamni dañ ci mëna japp ci ba ci bu ñu ngi ñaanal ñëpp yal na yàlla ba ñaar ñëpp. incha allah incha allah. yaakaar nañ ko ci yàlla. yaakaar nañ ko ci yàlla. dina def. dara taw ko dara taw ko. di barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. di barke alxuraan. barke weeru koor bu jóge. barke yonent bi ak maam yi leen wutu woon ñëpp. na سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله